Israel alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ñu ngi dellu si ci weeru koor wu màgg wi nu nekk di fàttali sunu bopp di leen fàttali ci tomb bi nga xam ne tey moom lañu tànn te mooy assiyaamu tarbiya koor yar la yar la boo xam ne doomu aadama da ci yar boppam waaye en même temps mu nekk jaamu yàlla kon ñaar la ëmb nekk jumtukaay boo xam ne doomu aadama dafay jëf daf koy jëfandikoo pour am ak yar waaye daf ci jële jaamu yàlla tabaraka wa taala moom koor day yar bakkanu doomu aadama direct di yar yaramam di yar jikkoom waaye ba ci ay aadaam sax daf koy defar moo tax ñi jàpp koor bàyyi lekk la ak naan dañoo juum koor ëpp na fañ ko takk dafa ne bàyyi lekk la rek ak naan waaye koor ëmb na leen ndax dalay tere sax mooy yàlla tabaraka wa taala lépp luy muharramaat mooy lu araam lu yàlla soriloo nit ñi lu leen yàlla tere koor daf la koy bàyyiloo koor mbokk yi dafa ëmb ëmb bu mat sëkk al indimaj al kaamil ibadat li muddatin muayyana koor dafa boole boole bu matal sëkk jaamu yàlla yépp ci diir bu ñu xam moo tax yàlla mu ne ayyaamam maadudaat ay fan yu ñu lim la weer la boo ko takkee ñaar fukki fan ak juróom ñeent su baree ba bari nekk fanweeri fan ñaar fukki fan ak juróom ñeent yooyu wala fanweeri fan yooyu yàlla may la pour lan pour nga takku ci def ci formation def ci stage pour bu koor gi jeexee nga mën a tàmm jaamu yàlla nga mën a continuer ci njubal yàlla tabaraka wa taala nga mën a continuer ci roy sayduna muhammad alayhi salaatu wassalaam loolo tax mbokk yi mu nekk lu leer ci sunu kanam lu boroom xam-xam yi leeral bu baax a baax a baax ginnaaw bañ ko jëlee ci ay source ay texte yu yàlla wax ci alquran ne koor day tax nit am ragal yàlla day tax bakkanam yaru day tax nit nekk ab jullit moo tax yàlla tabaraka wa taala sant ñu ko pour ñu def ñu delloo tuuti alquranul karim danañ fekk aaya yi ñu borom bi di sant ne dañoo war a jaamu yàlla borom bi daf ñuy wax ne bu ngeen ma jaamoo rek daa di am ragal yàlla borom bi tabaraka wa taala nee na yaa ayyuhan nas i'budu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun ee yéen nit ñi jaamu leen seen boroom boroom bi nga xam ne moo leen bind yéen ñii waaye moo bind seeni baay seeni maam yi leen fi jiitu woon dafa mel ne dañoo laaj boroom bi lu tax ñu lay jaamu mu ne ndax ngeen am taqwa ngeen mën a am ragal yàlla ngeen mën a def li yàlla santaane bàyyi li yàlla tere loolu mooy maana taqwa kon jaamu yàlla yaa ngoog julli ci la bokk koor ci la bokk jàngal quran ci la bokk joxe azaka ci la bokk dem màkka ci la bokk lépp loo xam ne lu baax la lu rafet lu boole yiw wi yàlla bëgg ak yonentam ci lu feeñ ak lu nëbb loolu mooy ibada noonu la ko sëriñ ba tekkee biñ ko ne lan mooy al ibada mu ne ismun jaami li kulli ma yuhibbuhu allah wa yardaahu min al aqwaali wal af'aali al zaahirati wal baatina tur la wu ëmb lépp lu yàlla gërëm te bëgg ko ci ay wax ci ay jëf loolu mooy jaamu yàlla moo tax ci alquran mbooleem fu yàlla di wax ibaada na ngeen ma jaamu li muy tekki mooy na ngeen ma kennal wa maana ya'buduni yuwahhiduni maana nañ ma jaamu yàlla lan la ci bëgg a wax mooy nañ ma kennal nañu def samay santaane nañu bàyyi samay tere mbokk yi koor dafa ëmb loolu ñu ne moom mooy ragal yàlla daf koy maye ndax yàlla wax na ko yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaquun buur yàlla tabaraka wa taala nee na yéen ñi gëm yàlla yàlla dafa woote kan la woo ñi ko gëm lum leen di doyee mu ne man yàlla maa farataal ci yéen koor maa leen ko sant comme ni ma ko sante woon seeni baay ak seeni maam yi leen fi jiitu woon lu ngeen ciy jële mu ne ragal yàlla ni mu ko waxee ci jaamu yàlla gis ngeen koor ci jaamu yàlla yi la bokk loolu moo tax résultat bi fi muy teere ak yow soo ko defee mooy da ngay am taqwa naka noonu la ko waxee ci aj fa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa ut leen yóbbal yóbbal bi gën a rëy na nekk ragal yàlla noonu la ko waxee ci tabaski mu ne moom yàlla soxlawul yàpp mi soxlawul kawar gi soxlawul xarmu ngand bi lan yanaalu llahu luhumaha wala dimaaha walakin yanaaluhu taqwa min gis na tabaski sax li sax yàlla di la ko sant mooy pour nga am ragal yàlla alquran bi li tax yàlla wàcce ko mooy pour nga am ragal yàlla xuzu ma aataynaakum bi quwwa wazkuru ma fihi laallakum tattaquun koor tabaski aji màkk jàng alquran yooyu yëpp ci ibaada la bokk loolu moo tax yàlla mu ne bu ngeen ko defee da ngeen di am taqwa da ngeen di am ragal yàlla yamale ko foofu rek ba ci loi yi nga xam ne moom moo ëmb alquran yàlla wàcce ko bëgg ñu dunde ko yàlla dafa ne loi yooyu suñu ko jëfee dañuy am taqwa walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laallakum tattaqun yàlla mu ne luwaa yi ma wàcce ci alquran ku rey nit nañ rey ku def nangam nañ ko def nangam yooyu su ngeen ko jëfee lu mu leen di jural fu muy teereeg yéen mooy ngeen am ragal yàlla mbokk yi ñi ragal yàlla ñoom la yàlla bëgg inna allah yuhibbul muttaqin addina bi la ñuy bari bari jullikat yi woorkat yi ñu jox azaka ñi añ màkka ñi jàngal quran ñii def ñii def li ñu bari bari nit ñi li ñu bëri yàlla nee na man ñi ma ragal ñoom laa bëgg inna allah yuhibbul muttaqin ñi ragal yàlla ñoom la yàlla di nangul seen jëf nit ñi li ñuy jëf lu mu bari bari bari bari ñan la yàlla di nangul innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ñi ragal yàlla dong la yàlla di nangul seeni jëf waaye ñi ragal yàlla ñoom la yàlla àndal inna allaha ma al muttaqin allahu akbar kon taqwa moom dong moom mooy jubluwaayu jullit ci kaw suuf pour mu am ko pour mu mun a juboog boroomam lépp loo am te amoo taqwa sa diine des fokk nga am taqwa sa diine doog a baax mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ñi ragal yàlla problème bu ñu am ëllëg yàlla day intervenir def leen ci génne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ñi ragal yàlla mbokk yi problème bu ñu am jafe-jafe bu ñu am xat-xat bu ñu am borom bi tabaraka wa taala nee na maa leen ci génne ñoom ñi ragal yàlla ñoom la yàlla di baal seen bakkaar wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'aati ku ragal yàlla yàlla nee na bàkkaar yoo am yépp dinaa la ko jéggal waaye su ma lay fay sax dama koy duble ñi ragal yàlla ñoom la yàlla dencal aljanna saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi uiddat lil muttaqin ñi ragal yàlla ñoom la yàlla dencal aljanna waaye ñi ragal yàlla ñooy jéggi siraat summa nunajji allazina ttaqaw wa nazaru zalimina fiha jisiya kon doomu ndey mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ramadaana ngi nii weeru koor yàlla indil nu ko muy weeru ngëneel weeru xéewal weer woo xam ne li yàlla bëgg ci ñun suñ ci góorgóorloowee ci lañ koy amee ci lay nekkee ca mooy lan ñu mën a am taqwa ñu mën a am ragal yàlla ngir ëllëg ñu mën a jubóog suñu boroom ñu dugg aljanna moom koor googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ci wax ju rëy ne ñu nekkul rek bàyyi lekk bàyyi naan nekk ci leneen dafa ne yow fi nga xëye fajar quatre heures quatre heures et demi ba cinq heures di xët ba cinq heures et demi ginnaaw ba nga bàyyee lekk cinq heures et demi ba timis bi di waaj a jot fii lekkoo fi naanoo fi rek woor nga déedéet loolu rek mooy woor moo tax yeneen bi ñu ne man lam yada qawla zuur wala amuya bihi fa laysa lillahi haaja fi an yada taamuhu wa sharaabu koo xam ne bàyyiwul caaxaan waxu caaxaan bàyyiwul jëfi caaxaan bàyyiwul mbóosóor bàyyiwul fo yàlla soxlawul ci bàyyi bi mu bàyyi ak bàyyi bi mu bàyyi naan mbokk yi yonent bi wax ñu ba tey asiyaamu junna fa ida kaana yawmu sawmi ahadikum fala yarfas yawma idin wala yasxab fa in saabahu ahad aw qaatalahu falyaqul inni inni mru'un saa'im inni mru'un saa'im inni imru'un saa'im man dey nit ku woor la man dey nit ku woor la yonent bi nee na koor pakk la koor day baare nit ci yu bon ci ay mboosóor ci ay yu doyadi yu nit di def koor daf koy aar mu ne kenn ci yéen bu xëyee woor am ku ñëw di ko bëgg a dugal ci caaxaan yent bi nee na bu mu ci dugg bu mu ko wuyu bu demee ba saaga ko bu mu fayu bu demee ba bëgg a xeex ak moom sax bu mu fayu na ko ne man mii day dama woor man mii day dama woor man mii day dama woor kon mbokk yi pour ñu xam ne koor dëgg dëgg day yar koor njëriñ yi mu ëmb fokk ñu fàttaliku tomb yi nga xam ne boroom xam-xamu lislaam yi dal na leen yàlla fay tënkal nañu ko ci ay téere nañu koor njëriñi kese la waaye koor day yar bakkanu doomu aadama ba doomu am ne doomu aadama xam ne yàlla mooy yàlla moom mooy jaam am na ci ku tudd alxaafiz alxastalaani tënkal nañu njëriñu koor koor yar bi muy yar bakkan ci ay tomb tomb bu mu njëkkee mu ne koor tarbiyatul nafs koor day yar bakkan ba bakkan xam ne yàlla mooy yàlla moom mooy jaam lenn ci boroom xam-xam dañuy nettali ne yàlla bi mu bindee nit yàlla bi mu bindee bakkan def ko dugal safara lakk ko ba mu ñor mu génne ko ne ko bakkan yaay kan mu ne ko yaay yàlla may bakkan yàlla dugal ko aljanna fi gën a neex jox ko xéewal yu dul jeex génne ko ne ko bakkan yaay kan mu ne ko yaay yàlla may bakkan yàlla xiifloo ko benn fan ba ngoon jot yàlla ne ko bakkan yaay kan mu ne ko yaay sama boroom maay sa jaam kon bakkan li li mën ci moom dara mooy xiif leneen mënu ci dara moo tax gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi dégg diine keroog ba muy yar ndaw yi pour ndaw yi mën a yar seen bakkan lan la leen wax yaa ma'shara shabaab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bissawm fa innahu lahu wija allahu akbar yonte bi ne yéen ndaw yi ku mën a takk soxna takkal ndax takk soxna mooy tax nga sajj say xef mooy tax nga mën a seere sa ceinture nga mën a takk sa geño mu ne ku ko mënul ngalla waay del dëkke woor ndax koor moo la ci aar moo lay protéger kon ci hadis bi bu fekkee ne dégg nañ ko danañ gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li mu wax mooy yar bakkan fii ci hadis bi mooy koor koor dong mooy tax doomu aadama mën a yeew tubéyam mën a seere geñoom takk sentiram koor dong mooy tax jullit bi mën a yar bakkanam moo tax ñu ne koor tarbiyatun nafs day yar bakkan waaye wa tadribiha day tàggat bakkan bi ci lépp loo xamante ne safaan la lu mu warul def koor dina fexe doomu aadama di ko def ci koor rek ngay gis ku woor bët yi mu téye ko téye nopp yi téye gémmiñ gi téye loxo yi téye tànkam ci koor rek moo man loolu nit ñaa ngi julli waaye yu nekk ñu ngi koy def joxe azaka lu nekk ñu ngi koy def aji màkk lu nekk ñu ngi koy def waaye su nit wooree mu def loolu ñu nekk ci nekk maanaa koor mu jox koor gëddëm def ko ni ko diine waxee wallahi kooku su bakkanam yaru la loolu moo tax ndeysaan yàlla defal nu ko muy fanweeri fan wala mu nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ndax bu jeexee ñu mën a loolu ñu doon tàggat loolu ñu doon yar suñu bakkan ak di ko tàggat ñu mun cee continuer ñu mun cee wéy waaye mbokk yi bokk na ci njëriñi koor mooy pour doomu aadama mën a xeex ak seytaane ak bànneexi bakkan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su koor ñëwee dañuy yeew seytaane tëj bunti safara ubbi bunti aljanna kon su koor ñëwee doomu aadama woor dina moom ki woor koor gi dina ko mën a dimbali ba mu xeex ak nazaraati seytaani yooyu seytaane di ko jax-jaxal yooyu seytaane di ko xalaatloo yooyu seytaane di ko bëgg a defloo ak bànneexu bakkanam su wooree moom doomi aadama bi woor koor gi dina ko mën a dimbali ba ñaar yi mu mun cee mucc jax-jaxali seytaane ak bànneexi bakkanam iz yaqulu almustafa sallallahu alayhi wa sallam inna shaytaan yajri min ibnu aadama majra dem fa dayyiqu majaaribihi bil juu'i wal atash ki yàlla yónni woon ci ñun nee na seytaane day daw ci doomu aadama ni deretam di dawee seytaan day daw ci yaramu doomu aadama ni deret ji di dawee ci yaram bi di circuler noonu la seytaane di def tuur ci yaramu doomu aadama yonent bi nee na bu ngeen bëggee xatal seytaane ci seen yaram ba du ci dugg wala du soy na ngeen ko xatale xiif ak mar allahu akbar xiif ak mar nag lu muy tekki mooy woor rek allahu akbar moo tax walaay diine mooy yar lenn du yar di nit du dul diine doomu aadama du defaru ci kaw suuf du dul diine moo ko mën a defar te diine buñ ko waxee liñ ci bëgg liñ ci namm mooy al islam ndax inna diin inda allahi al islam diine ci yàlla mooy lislaam képp ku jàpp beneen diine bu dul lislaam yowmal xiyaam da ngay perte wa man yabtagi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin dan nañ ci yàlla musal doomu ndey kon koor yonent bi nee na mooy xatal seytaane ba du sori ci seen yaram du ci dugg yonent bi nee na ku bëgg a mucc ci seytaan ku mëgg ku bëgg a mucc ci bànneexi bakkan yonent bi nee na na nga woor ñetteel mbokk yi assawma assawmu yuarrifu almar bi niamillahi aley koor mooy won nit ne yàlla defal na ko ay xéewal koor moo lay wax ne yow mii di yaakaar ne yàlla defalu la dara yàlla defal na lay xéewal koor mooy tax nga mën a ges say mbokk yi ñàkk xiif bi ngay xiif mar bi ngay mar boo yendoo ba ngoon xiif ak mar te yàlla dénk na la dara ah nga war a xam ne nekk dëgg dëgg dëgg war naa dimbali ci samay mbokk bii di xiif nekk xiif nii la mel ah ñi amul daal ndeke sonn nañ ah ñi ñàkk daal ndeke sonn nañ ah ñi seen loxo jotul seen ginnaaw daal ndeke sonn nañ ndeke yow mi am yàlla da lay musal nga ñam xiif ñam mar ndax nga xam xiif ak mar nu mu mettee ndax ëllëg boo dëkkatee ku loxoom jotul ginnaawam nga mën koo jàppale soo ndékkatee ba pare soo ko mënta jëndalul ndékki nga yónnee ko rusuti mburu yi nga yónnee ko desu mburu mi ak desu kafe gi soo añatee su fekkee mënoo koo yekkal nga mun koo yónnee ceeb bi des soo reeratee su fekkee mënoo ko yekkal nga mun koo yónnee desi ci cere ji des ki yàlla yónni woon ci ñun nee na laysa minna man baata shabaan wa jaaruhu jaaye bokkul ci ñun ñun du bokkul ci ñun ku fanaanoo suur këll denc sa dépasse ëllëg sa mbokk nekk sa wet xiif wallahi mbokk yi buñ doon dund diine jafe-jafe yu bari tey yu ñuy nemmeeku ci kaw suuf yu ñuy nemmeeku ci kër julit yi yu ñuy nenne yu nemmeeku ci dëkk julit ñi wallahi lu ñu wax ne du am waaye du bari jafe-jafe yu ñuy gis tey yépp li ko waral mooy ñàkk dund diine lislaam mooy ñàkk a jox diine ji gëddëm mooy ñàkk dénk sunu nopp yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam ci koor la nit mën a fàttalikoo xéewal yi la yi ko yàlla defal su ko defee mu mun a taxaw moom doomu aadama boobu ci dimbali ay mbokkam ñeenteel ci njëriñi koor ci koor day yar bakkan doomu aadama bi ci lay mën a dimbalee ay mbokkam ci sarax yu'iinu ala sadaqa muy dimbali nit ñi ci sarax wa zalika bi sababil ju'i wal atas loolu nag li koy waral mooy doomu aadama yi nga xam ne ñoom lay dimbali xiif gi ñuy xiif mar gi ñuy mar doomu aadama di leen sarax di leen dimbali looloo tax yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ñu ne ku tabe woon la waaye ñu ne bu weeru koor ñëwee moom mooy gën a tabe sax ngelaw li ci joxe bu muy joxe juróomeel mbokk yi koor dina dimbali doomu aadama alal intilaaqi fil ibaadaat yu'iinu nafs alal intilaaqi bil fil ibaadaat wal xayr koor day dimbali nit nit ki mën a départ ci jaamu yàlla waaye mën a départ ci jëf-jëf yu baax gis nga tey suñu wooree sama mbokku séeréer yi bare bari nga xam ne daawuñu julli jàkk daawuñu julli fajar jàkk da ngay gis ndeysaan bu ñu xëddee rek utali jàkk bu ñu wooree lenn ci ñoom ñi nga xam ne daawuñu déglu alquran da ngay gis ñu commencé di déglu alquran di commencé di ay waaraat kon gis ngeen njëriñu koor tey dimbali doomu aadama ba mu mën a jaamu yàlla jëf-jëf ju baax xolam day ubbeeku xelam ubbeeku ay cëram sawar ci jaamu yàlla tabaraka wa taala ak def lu baax gis ngeen njëriñu koor mbokk yi juróom-benneel mooy koor day wéral yaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suumu tasixu hadis boobu même buñ koy jam maanaa bi menees na koo jëfe ndax ku woor rek wér ndax xoolal lekk gi mbàq buy fees guddeeg bëccëg biir buy fees guddeeg bëccëg waxuma la dara waaye ay jàngoro dong dong dong dong la ci doomu aadama di jële soo wooree sa yépp mën a noppalu mbàq mi mën a noppalu butit yi mën a noppalu gémmiñ gi mën a noppalu boli gi mën a noppalu lépp mën a noppalu ndax oto buy daw bis bu nekk ak oto bi nga xam ne semaine bu nekk wala bis bu nekk ay minute lay daw ay waxtu lay daw ñu gaare ko oto boobu day moom mooy gën a mucc ayib ak oto bi nga xam ne moom du noppalu moteur bi tàkk guddeeg bëccëg du noppalu jamais wallahi moteur buy daw ay waxtu di noppalu moo koy gën a yàgg kon doomu adama bi nga xam ne it mu ngi lekk guddeeg bëccëg amul noppalu ndékki añ njoganal reer felaat di fel ci diggante bi ay fel ah ak ki nga xam ne léeg-léeg mu woor weeru koor léeg-léeg mu woor bisu altine léeg-léeg mu woor alxamis léeg-léeg mu woor ayaamul biid te mooy fukki fan ak ñett fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom léeg-léeg mu woor sitta sawaal léeg-léeg mu woor yow mu arafa kooku day wax dëgg yàlla moom mooy ëpp wér ak waa ji nga xam ne moom day fel bis bu nekk rek lu mu gis rek di raatale dugal ci biiram moo tax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu nañu su ngeen bëggee wér woor leen kon koor mbokk yi moom lañu yàlla indil jumtukaay yàlla indil ñu ko muy moyen boo xamante ne dinañ ci mën a jaamu yàlla tabaraka wa taala góorgóorlu ci sunu kemtalaayal kattan ngir yàlla tabaraka wa taala bi ñu tiyaaba mbokk yi doomu aadama yi bi ñu xamoon lu ci koor danañ mébét seen dund gi yëpp nekk koor suñu xamoon li nekk ci koor ñun ñëpp kon danañ mébét suñu dund lépp ñu def ko koor ndax njëriñ yi làqatu ci koor barke yi ci làqatu ak xéewal yi nga xam ne ñoom ñoo làqatu ci biir koor yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ñuy wax ngëneelu koor mu nañu ci hadisul kursi boo xam ne abu hurayra moo ñu ko nettali yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla tabaraka wa taala moo wax kullu amali ibnu aadama lahu illa siyaam fa innahu lii wa ana ajzi bihi wa siyaamu junna fa ida kaana yowmu sawmi ahadikum fala yarfas wala yasxab fa in shaabahu ahad aw qaatalahu falyaqul inni imri'un saa'im wallazi nafsu muhammadin biyadihi la xulfu famu saa'imin atyabu inda allahi min rihi lmisk lisaa'imi farxataani yafrahuma ida aftara fariha bifitrihi wa ida laqiya rabbahu fariha bisawmihi buxaari wa muslim yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na doomu aadama jëfam yokk moom ba mu des koor nee na koor maa ko moom maa koy fay koor maa ko moom maa koy fay doomu aadama jëfam yépp yu mu jëf moom moo ko moom amma koor nag man yàlla tabaraka wa taala man maa ko moom man mi maa koy fay nee na bu kenn ci yéen xëye woor ngalawaay nga musal ci boppam ci sëy nga musal boppam ci xuloo ci xaste ci xeex ci saagante su amee ñu ñëw bëgg a reyanteeg moom sax na leen wax ne man mi dama woor yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mu ne wallahi maa ngi giñ ci màggaayu yàlla maa ngi giñ ci buur bi nga xam ne bakkanu muhammad ci loxoom la nekk mu ne gémmiñu ko woor moo gën a xeeñ ci yàlla ci lat ko lañu misk parfum bii tudd misk gémmiñu ko woor xeet googu muy génne yonent yàlla muhammad nee na moo gën a neex ci yàlla parfum misk yonent bi nee na ku woor dina am ñaari kontaante dina bég ñaari yoon ñaari bég mbégte yoo xam ne ku woor dina ko am ku woor bu demee ba ngoon bay dog day kontaan waaye ku woor bis bu dajeeg boroomam yàlla di ko dugal aljanna dina kontaan te wallaay loolu hadis bi lu neex a dégg la soo wooree ba ngoon bay dog da ngay kontaan allahu akbar da nga yëg ne yow def jublin nga taxaw nga santaane yàlla yàlla sant la def nga ko te yaa ngi nii di dog lekk gaa ngi la wër naan gaa ngi la wër lépp ak la wër da ngay kontaan waaye kooku kontaante bu ndaw la bu mag bi mooy ëllëg wala yàlla di woo di la fay di la dugal aljanna kooku mooy kontaante bu mag bokk na ci ngëneelu koor ba tey yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na inna fil jannati baaban yuqaalu lahu rayyaan yadxulu minhu saa'imuun yawma alqiyaama allahu akbar laa yadxulu minhu ahad gayruhum yuqaalu ayna saa'imuun fa yaquumuun laa yadxulu minhu ahadun gayruhum fa idaa daxalu ughliqa falam yadxul minhu ahad rawahu buxaari wa muslim yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na am na ci aljanna benn bunt bu tudd rayyaan nee na ñi doon woor ñi doon xiif ngir yàlla ñi doon mar ngir yàlla ñu teewoon seen cër yi te lekk te naan woor ngir yàlla yonent bi nee na ñooñu ñoo fay jaar keneen dootu fa jaar nee na kenn du fa jaar ku dul ñooñu dañuy dégg rek ab wootekat di woote naan ana ñi wooroon mu ne ñu jóg taxaw ñoom ñi wooroon ñu ubbi leen bunt bi ne leen dugg leen suñu duggee ñu tëj bunt bi kenn du fa jaar ku dul ñoom danañ ci yàlla boole mbokk yi dama jàpp ne ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ bëgg ci yàlla bu fekkoon ne koor benn hadis bi dong dong dong moo ci ñëw doon na doy bu fekkoon ne njëriñi koor benn hadis bi dong lañ ci yonent yàlla muhammad wax wallahi doon na doy xoolal yow jullit ëllëg nga toog dégg yàlla tabaraka wa taala di def annonce naan ana ñi wooroon ñu ne ñu ngi nii ñu daal leen ubbil benn buntu ci buntu aljanna yi buntu bi tudd Rayyaan ne leen dugg leen tere nañ leen buntu bi yéen dong yéen a fi jaar kenn du fi jaar ku dul yéen su ngeen demee palais palais yëpp ñu nekk ci àdduna bi président de la république am na fa po boo xam ne moom dong moom fay jaar keneen du fa jaar lu dul président bu mel ni moom wala ku takk ndomba tànk bu tolloog bi président takk moom dong moom moo fay jaar waaw ak otom ak waruwaayam moom dong moo fay jaar xoolal ñi woor yàlla dencal na leen buntu biir aljanna borom bi tabaraka wa taala mu ne ñoom dong ñoom ñoo ciy jaar lii dama ne ku mu doyul dara dootu la doy ci kaw suuf lii ku mu doyul teranga doyula xéewal soññu la ci jaamu yàlla soññu la pour nga góorgóorlu rey sa bopp woor wallahi dara dootu la doy mbokk yi jaamu yàlla bi ñuy def lan moo tax ñu koy def du pour dugg aljanna lu tax ñuy julli lu tax ñuy joxe azaka lu tax ñuy aji màkka mboolem jaamu yàlla yi ñuy def lépp liñ ci bëgg mooy yàlla tere leen ñu aljanna yàlla nee nañu bu ngeen wooree ma dugal leen aljanna lu fi desati lan moo fi desati bu fekkee tiyaaba dong la ñuy ut lii nu nu wax lan moo nuy doy teraanga bi ci gën a rëy yonent bi nee na bu ngeen duggee ba pare dañuy tëj bunt bi bunt bi yéen ñu wooroon dong yéen a ci jaar keneen du ci jaar ku dul yéen waaye lii lii lii dëgg dëgg wallahi bu doyul ab gor bu doyul ab julit dara dootu ko doyati mbokk yi hadisu abdullah ibnu omar ci ñetteelu ci ngëneelu koor yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na assiyaamu wal qur'aan yashfa'aani lil abdi yawma alqiyama yaqulu siyaam ay rabbi mana'tuhu at-ta'aamu wash-shahwaat bin-nahaar فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعاني yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na koor ak alquran dañuy ramu jaam koor ak alquran dañuy ramu jaam bi koor ak alquran dañuy ramu jaam koor day ñëw daan na yàlla maa ko tere woon lekk maa ko tere woon naan maa ko tere woon lekk maa ko tere woon naan maa ko tere woon ay bànneexi bakkanam yow ngalla yaay tin ngalla yow yàlla tin ma ci waaj man maa ko tere woon lekk maa ko tere woon naan tin ma ci moom alquran daa di ñëw daan na yàlla ki maa ko tere woon nelaw guddi daawul nelaw ngir di ma jàng di ma réviser guddi ak bëccëg ngalla yow yàlla maa ngi lay tinu ci waa ji nee na yàlla daa leen di jox ndigal ñoom ñaar ñu daa di tinu waa ji ñu daa di jàpp ci loxo waa ji daa di koy dugal biir aljanna allahu akbar mbokk yi lan la ñu bëgg tey di nga ñëw soo ñëwee tey ci réew mi gis ay nit yoo xam ne du ñu jaamu yàlla ndax topp ay nit nee na ñooñ ñoo leen di rammu léegi yow mi nga xam ne da nga bëggoon ku la rammu wa kuntum tasfa tatma'una man yasfa'u lakum yawma alqiyama da ngeen a bëggoon ñu leen rammu ëllëg yawma alqiyama borom bi tabaraka wa taala nag koor daf leen di rammu ñoo jàpp seen loxo daan ne yàlla waa ji tin ma ci moom waa ji dugalal ma ko aljanna kon lu fi desati bu fekkee yow li nga bëggoon ci kaw suuf dong mooy ku la tinu lu la tinu pour nga dugg aljanna borom bi tabaraka wa taala xamal ne la ne soo wooree koor dina ñëw tinu la kon doomu ndey yi mbokk yi dara desatu fi lu dul nga góorgóorlu nga woor jàng alquran ëllëg ñoom ñaar ñu ñëw daal lay tinu daal lay dugal aljanna bokk na ba tey ci njëriñu koor hadisu jaabir radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna siyaamu junna yustajannu biha al abdu min annaar allahu akbar yonent yàlla muhammad nee na koor pakk la koor barrière la boo xam ne day baare nit nit def ci ut barrière baaree ko boppam bu du dugg safara huwa lii man koor maa ko moom waa ana ajzi bihi man yàlla maa koy fay xadis boobu ahmad moo ko solo mbokk yi kenn ku nekk ci doon nga bëgg ànd ak ponkal moo xam ne buñ lay dóor ponkal mi ñëw daan lay baare daan lay aar kenn ku nekk ci ñun bëggoon nga ko bëgg nga garde koor ba nga ànd ak kilifa goo xam ne dinañ la rus yàlla nee na tabaraka wa yonent bi nee na yàlla tabaraka wa taala lan lay def moom yàlla tabaraka wa taala ah lan lay def mooy ci koor lay fegale doomu aadama ba doomu aadama bi du dugg safara koor mooy ñëw protéger ko koor koor mooy ñëw aar ko koor mooy ñëw jàppale doomu aadama bi ba du dugg safara kon mbokk yi nañ góorgóorlu weer wi ñu góorgóorlu suñu kemtalaay kàttan ñu jéem a am tiyaaba ñu jéem koo màng ñu jéem a ut yiw ñu jéem a ut tiyaaba ñu jéem a góorgóorlu sunu kemtalaayil kàttan ngir yàlla tabaraka wa taala defal ñu tiyaaba mbokk yi li moo doon waxtaan wi ñu ngi ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu def ñun dégg ak topp ñu ngi ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu nangul ñu sunuy julli nangul ñu sunu koor nangul ñu bépp xeetu jaamu yàlla bu ñu def ci biir weer wi seen mbokk al oustaz Saïd Ly moo doon jokko ak yéen ci émission bi nga xam ne moom moo doon asiyaamu tarbiya koor yar la day yar bakkanu doomu aadama ñu ngi ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu def ñun dégg ak topp assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu